yow alquran danga ma xamal danga ma sagal yaa dàq saak lëndëm teru yaa koy dalal yow alquran ku la xam la dugut leneen yaa dàq lem yaa baax ci xol yaay dàq neen foo nit mu leer yaa matte yaay faj ay tawaat aoudu billahi samii alim min alcheytan arrajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi ridwanullahi taala alayhim ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin mbokk yi ñuy teewlu ci Daara Koki TV bi rawatina seen émission bi di découverte seen daara ci euh, saison numéro 2 ñëwaat ci beneen daara ci beneen sëriñ daara ci beneen numéro ñu ñëw tey fii ci Mbour incha allah tabaraka wa taala ñu fas yéene ñu fas yéene seet si benn ci daara waaye duñ joxe gum yi dañ leen di bàyyi ensemble ñu découvrir jëmm ji nga xam ne moom la ñuy seet si moom mi nga xam ne moom moo nekk ci euh, moo nekk kilifa ci daara ji su defee bu ngeen ko gisee rek xëy na loolu dina la jox dina leen jox benn idée ngeen xam fi ñu ñëw fan la moom ci boppam dina leen wax daara ji nga xamante si ne moom la ñu ñëw tur bi ak fi mu nekk incha allah asalaamaaleykum wa waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi lay ziyaara bu baax di ziyaara waa daaray Koki TV yëpp macha allah di leen nuyu di leen ñaanal borom bi tabaraka wa mu taxawu lépp sàmm lépp aar lépp yàlla yëkkati tamit daaray Koki TV comme ni nga xamee ne noonu lay yëkkatee lépp lu mu sop ña fa nekk mu yëkkati leen comme comme ni muy yëkkatee képp ku mu sopp jërëjëf macha allah kon mu ngi noonu gis ngeen ko ko kii mooy Abou Diandel kon dañ lay bàyyi nga présenté ndax wax naa tur ba pare sax nga présenté présenté daara ji fi mu nekk incha allah waaw tur bi day Abou Diandel la mooy sama tur dëgg itam mhm. du kunniya comme ni ko ñu bari yaakaare mhm. mbuur fii laa dëkk fi ñuy wax mbaaling daara jii ñu nekk itam mooy xaaru xiraa mokkal alquran na ko tax a jóg ak yar ay ndaw jàngal leen xam-xam di am mébétu bépp xam-xam bu nit di jàng di ko soxla ci dundam nu jàngale ko ci suñu daara ji macha allah abu jandal kon mu ngi noonu man sax dama yaakaaroon ne kii bi dañ la dàkkantal la rek waaye tur bi njëkkate loolu mooy sa tur dëgg dëgg dëgg kon euh, Yaaba Jamdal bu ñu mënoon a xam daara ji kañ nga ko sos waaye laata loolu nga wax mbokk yi yi lay seetaan ñu bari xamuñ ne jàng ko mhm. kañ nga jàng ko kañ nga fa nekkoon ba diggante nga fa nekkoon waaye laata loolu nga ñëwoon ñu ci daara ji incha allah kañ nga ko sos daara ji aussi. alhamdulilah daara ji mën naa ne sosuma ko waaye nag. Euh, évaluation bi ci am ci sunu loxo la ko yàlla jaarale ci jamono yu yàgg yàgg yàgg la sama papa taxawaloon ab daara fii ci mbuur moom ku bëgg alquran la joxoon ko ku ñuy wax sëñ daara mbay jóob ku mokkaloon alquran la nekkoon ci dëkk bi sama papa jël ay doomam jox ko mu leen di jàngal su weer deewee lu mu am jox ko kooko dem ba magal dikkal ko mu indi ku ñuy wax sëñ daara mbay gay kooka itam nekk fi ba ni fi jóge mu indiwaat ci diggante bi ay yeneeni sëriñ daara man sëñ daara mbay jóg moo ma dalal waaye comme góor gi jamono boobu ndeysaan bëgg na daara mais nag am amam demewul woon noonu da daan def kum jël ah bu weer deewee danaan la lii laa lay jox la ca des ñun dañuy dem yalwaani indi ko ba ñu fi jaar ñu ci bari noonu lañ jaare ak ñun ba ki fi mujj ñu koy wax sunu papa alaaji nekk ca tëngéej ci léegi fi mu ne yaakaar naa yor na daara ji lu tolloog juróomi at yoo xam ne xale yi dañuy yalwaan di ko indil waaye itam comme ni nga ko xamee rek ndeysaan képp koo xam ne dégg nga ne góor gi tijji na daara ci mbuur fekk yow yaa ngi fii ci mbuur nekk mbokkam yow it da ngay woo say mbokk ne leen fii am na daara te ñoo indi diw sàngam waxal diw sàngam mu indi doomam ñoom it ñu indi seeni doom eh, am na ñu fi nekkoon jóge Gàmbi am na ñu ci mokkal ba dem am ñu ci mokk am na ñu fi nekkoon jóge Saalum am na ñu ci mokkal anka kazalika actuellement nii am na ñu ci mokkal bi nga xamee ne daara ji commencé na ci sama loxo nag la mokkal gi commencé waaw euh, jamono yooyu na man nag bi ma bi ma jógee kokki 2013 mu nekk transition pour nga waxaale mbokk yi kañ nga fa demoon waaw asta maa ngi maa ngi juum bi ma jógee Fass mhm. xam nga man damaa jaar kokki mhm. jàng fa ba wàcc alquran jóge fa dem Fass Touré foofu laa mot foofu laa mottalee mhm. léegi nag man bi ma jógee Pastouré bi ma mokkalee Pastouré ci diggante bi dem naa fi Mauritanie jàngi ba ma ñëwaatee tamit delluwaat naa Pastouré nekk fa comme mu rab bi ci xale yi wax dëgg yàlla bi ma ñëwaatee nag fekk na ki fi nekk nag moom mu ne day bàyyi man ci laa jël daara ci bi ma ko jëlee nag laa laa arrêté yalwaan boobu te téyel xale yi sama bopp yaakaar yàlla borom bi tabaraka wa taala léegi nag euh, xam naa bu ñu duggee ci naka lañ def ba Euh, ba ba xale yi di dund saa ñu yalwaan après loolu daañu ko expliquer incha allah incha allah tabaraka wa taala kon mu ngi noonu macha allah tey ñu ngi ci ban daara nga wax fàttali xaaru xiraa xaaru xiraa kon mbokk yi loolu dañuy ñuy permettre ñu mën a dem ci rubrique bi ñu woowee découverte seen da découverte euh, ñu wan leen daara ji jëmi daara ji bu ko defee ñu daal di ñëw ci beneen partie يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم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 ay euh, def na cee ay yu bari pour mu àgg fii mu àgg loolu moo ñuy permettre sax daara ji taxaw nakk nga def ba taxaw ba ba ba fii mu àgg nii mu àgg fii dégg nañ la ci sa kàddu ku mel ni nga wax ne nekkul yow yaa ko sos waaye am na loo ci def est-ce que bi nga koy def yomboon na ndax li ma jot a dégg léegi dafa mel ni fii ab sël la woon mhm. naka nga def ba mën a fee def daara tey waa alhamdulilah jamono yi nga xamee ne daara ji mi ngi ci sama loxo papa boobu daara ji amul woon place moomal boppam waaye booba dafa amoon benn béréb boo xam ne moom lañ ñu aaloon fële foofa la ñu defoon sunu benn mbaar muy benn mbaarum sàkket ndeysaan xale yi macha allah sama papa ci bëgg alquraanam saal bi nga xam ne fa la doon eh, istiqbaale ay ganam sax moom dafa mujj xale yi dem ba di fa fanaan waaye itam sama papa ci bëgg alquraanam saal bi nga xam ne moom la doon istiqbaale ay gënam dafa mujj xale yi di fa fanaan saa bu ñu xëyee dem foofee nga xam ne fa lañ ñu aaloon ñu defoon fa suñu mbaar jàngi ci noonu la ñu nekkee ba yàlla borom bi tabaraka wa taala ci mbaaxam ñu am bërëb bii nga xam ne fi la daara ji nekk ñu am bërëb bi booba nag bërëb bi moom sën la woon wax dëgg yàlla sën la woon te palaasu ndox la woon bu méttee méttee méttee métti waaye macha allah kanaal yii nga xam ne moo fi jaar te monsieur meer maire seen Sène jaare la ko fi ñu ngi koy ñaanal moom it wax dëgg yàlla toujours su ma waxee wax ko ndax it wax dëgg yàlla politique ma de waaye nag bu ñu fi toogee di jàng al alquran des koy ñaanal kat nag ndax loolu it moom la dañ ko ciy ñaanal yaa dégg Eh, fa tabaraka rahman kanaal yooyu tey jaar fi moo tax fi nekkatul palaasu ndox waaye palaasu ndox bu metti la woon nekk sën alhamdulilah ñu jot ci tamit ci lu yomba yomba yomb alhamdulilah ba ba taxawal ko nii macha allah léegi dañuy des ci point boobu ba léegi muy jafe-jafe ci daara ji coono yi yaa ngi ko doon junj léegi ñaata ndongo ñoo fi nekk actuellement nii Euh, li fi nekk ci donga mat na ay 60. Euh, 60 personnes 60 personnes naka ngay def ba dundal leen. Hmm. ndax mel na ni fay waaw am na ñuy fay. Mm-hmm. am na ñu fayul foofu tamit xam naa ne lu mat a leeral la. Mm-hmm. daara ji internat la. Mm-hmm. interna la boo xam ne ni nga système bi ñuy dundee mooy. ki ñëw ne man kat dama bëgg internet sama doom di fay fayu internat. su boobaa kooku ci daara ji la dundam di génne. ki nga xam ne sama mbokk la dëkk ci dëkk bi wala mu jógee Saalum su ñëwee dañuy wax ka tax mu ñëw fi ne ko bu bu añ jotee wala leer wala ndékki tibbal ko indil ko waaye yéreem yitam bu ci fóotal ko ko man bu boobaa man danaa ko géral wàllu courant danaa ko géral wàllu ndox mi muy sangoo courant bi muy niitoo ak bërëb bi muy tëdd loolee moom danaa ko ko danaa ko ko mën a géral mais yeneen yi ci des nag ki wax ba mu ñëw fi di mbokk kookoo koy géral bu añ jotee mu tibb indi bu reer jotee mu tibb indi bu ndëkk jotee mu tibb indi bu ay yéreem tilime it mu fóotal ko ci biir loolu itam dañu taxawal benn projet projet bi nag mu jëm ci wàllu poulailler parce que jàpp nañ ne moo gën a mën a ànd ak euh, liggéey bii muy poulailler taxoon ñu def benn poulailler macha allah amoon tamit suñu benn machine boo xamante ne bi ku ñëw fii di suqi ginaar ñu suqil la nga fay ñu bu ko defee fa tabaaraka rahmaan eh, boo xoolee ndeysaan jamono yu njëkk ya boobu ba ma taxawalee poulailler ah ñu bari daan fi indi seen ginaar ñu leen di suqilee loxo benn waay moo fi ñëw rek ku baax macha allah ñu koy wax cheikh cheikh eh, sàmb mu indi lool ñu ay ginaar yu bari suqi bi yéex lool mu ne ñu kon yéen loxo ngeen di ñu ne ko waaw mu ne am naa fee benn machine danaa leen ko may noonee la ñu mayee machine bi fa tabaraka rahman ba ñu ci mën di suqi daal insha allah loolu itam lépp nag day dellu siwaat ci daara ji ba nga xam ne xale yo doon yalwaan te ñu tere leen seen yalwaan bi dootuñ mën a dootuñ yalwaanati ñaareel ba itam am na lu ma tëb li ma tëb mooy euh, daara ji bi nga xamee ne yalwaan bi dañ ko tere jamono yi la gënoon metti ndaxte booba dañ ne woon euh, xale yi nañuy fay fay bi nag ñu yombalal leen ko ne mille francs waaye booba jamono itam kenn ku si nekk yow yaay gérer sa sa doom ci wàllu lekkam ak yow man jàngal laa ci amoon yaa ngi dégg booba sama kër papa nag lañ nekkoon yaa ngi dégg booba jamono itam sama benn xarit bi mu ñëwee fekk boobu maa ngi takk soxna bees ndeysaan bu weer dee bu ñu fayee ko sax 30 mille yu mat sax doo ko am sama benn xarit ñëw fii ndeysaan ñu waxtaan ma expliquer ko mu laaj ma ma expliqué ko lu bari mu ma lii dafa metti ñoo koy wax Cerno Hamidou mu ne ma lii dafa metti damaa bëgg léegi yow soo jàngalee jàngaletee ba wàcc ñëwal sama kër su ko defee ngay jàngal samay doom ma lay fay noonu laay demee ci moom mu may fay 60 mille ndeysaan euh, ñu nekk ci loolu ba ku ñoo Abdourahman Awfu euh, Abdourahman doomu Abdou Aziz doomu sëñ Abdou Aziz Touré ca Fass benn bis mu ñëw fi ma jokkoog moom téléphone mu xamal ma ne ma sëñ Mansour si mii day daa bëgg kuy jàngal ay doomam ca laa dem ci sëñ Mansour ca ngoon soo sa dem fa ñu waxtaan mu ne ma léegi ñaata nga bëgg ma lay fay ma ne ko ah, man de xanaa da ngay xool rek loo moom daal boo boo ma lijjantilee paas bi mu ne ma ah garaaw léegi daal dinaa la jox cent mille francs keroog tiit naa tiit goo xam ne parce que wax dëgg yàlla ba <laughs> tiit waaw parce que maa ngi maa ngi xalaat ba xam cent mille la wax wala cinq mille la wax waaye sama xel mi naan ah non 100000 la wax 5000 kenn du ko la wax waaye loolu ndeysaan mu rëy ci man fa tabaraka rahman ah yàquma ko itam ànd ak sama soxna yàquma ko ñuy dajale rek ba jënd fii ba jënd fii fii nag it niñ ko jëndee ci suñu papa lañ ko jaare suñu papa ko njëkkoon a gis jënd ko ñu jëndaat ko ci moom maanaam moo jëndoon genn wàll gi ñu jëndaat ko ci moom ñaari terrain la woon dafa jënd genn wàll ji ñu jëndaat ko ci moom mu jëndaat geneen wàll gi ñu jëndaat ko ci moom boole ñaar yëpp mu taxaw fii tey nekk xaaru xiraa moom it ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax ci njàmbaaram ci daara ji macha allah muy góor gi yàlla ko fi yàlla bàyyi ba amiin ilaahi yàlla ko fi yàlla bàyyi ba ci kanam a ba léegi ci loolu la ñuy des ndax gis-gis yi ñi am ci wàllu daara bu ñenn ñi gëmee ne doomi daara ci boppam mooy yor daara am na ñeneen ñuy wax ne état bi dafa war a jàpp ci daara yow ban gis-gis am ndax dafa fekk ne doomu aadama wala wala euh, nitu daara moom ci boppam ndax am na ñuy wax loolu doomu daara mooy mooy yor daara te yow dafa mel ni yaay sa bopp yaa yor ay poulailler yëpp pour mën a yor daara ji ak yu ndax da nga gis da nga bokk ci ñu gis ne daara ñun ñoo koy defaral suñu bopp wala dañ cee war a xal keneen ku ñu ko defaral waaw xam nga ñun dañuy faral di wax ne état bi état nag dafa am lu muy liggéey état moom lu mu dugal alalam da cay dugal loxoom te ñun daara bu état dugalee alalam bëgg a dugal loxoom dañ ko naan seppil sa loxo dañ ko naan bàyyee ñu suñu daara état tamit bu fekkente ne ñun waa daara loolu lañ bëgg a seq ak moom nañ ko bàyyeek la mu am milliardaires yi ndonga daara yi ñuy dégg xam nga dégg nañ ñu ne daara li mu yar ci ay milliardaires loolu da koy dégg te li may wax te loolu am na de koom-koomu Sénégal gi yépp mu ngi ci loxo daa waa daara mm-hmm. man dama ne bu yowmal xiyaamee yàlla du laaj daara yi kenn doomu daara yi daara yar ba ñu yor ay milliards la koy laaj man loolu laa wax de état bi yàlla fële na naan ko demal kaay yéen yéen doomi daara yi kaay leen ana seen milliards yi ma leen joxoon ngeen war a xeexal daara xeexalu leen daara ndax toog foofu xale yi di yalwaan man dama ne waa daara nañu jóg defar daara yi man loolu laa wax looloo tax yëngu yooyu may def. Mm-hmm. di laajal daara yi ndimbal ah incha allah. Ah, léegi léegi euh, daara ji njàng mi nan lay demee programme bi ak yow bu ñu xëyee suba ba ngoon njàng mi naka lay euh, njàng mi nag euh, comme mën nañ na programme kokki lañ fi teg. may xale bi bu taree bind. Mm-hmm. day tare xasib bi mu toll ba ci bind bi mu yemoon. Mm-hmm. su paree jël ca raxasam ya la mu weesu. xool ca loo xam ne dana ko mën a tari mu tari ko muy ay muraajaam quatre heures du matin la ñuy jóg bu ñu jàngee ba julli jot ñu julli bàyyi xale yi ñu dem noppalu ji huit ñu duggaat jàng ba dix heures ba dix heures ñu bàyyi leen ñu dem ndékki ji trente minutes suñu duggaatee Euh, une kii la ñuy wàcc midi 30 la ñuy wàcc yaa ngi dégg bu liggéey bi parewul ñu continuer bi une heure euh, bu ñu duggaatee bu ñu wàccee dañ leen di bàyyi ñu dem nelawi su ñu nelawee ba deux heures ñu yee leen ñu julli su ñu jullee ba noppi nag ñu duggaat trois heures jàng ba cinq heures ñu jëm julli ji duggaat jàng ba six heures ñu daal di wàcc dem sangu ji bu dee bis boo xamee ne jànguñu nag dañuy dem entraînement alxames ak àllarba àllarba si ngoon comme kokki comme kokki waaw mais nag ñun fi ñu wutee kokki mooy ñun dañuy jàng àllarba ba 5 heures yaa ngi dégg xale yi wàcc dem sport football féexal seen xol mhm. alxames bi tamit kazalika ba noonu daal lañ koy lañ koy jàppee mhm. bu guddi bu ñu sangoo nag bu ñu jullee tamit pare xale yi commencé waat jàng guddi ba macha allah vingt et heure trente ñu daal ñu doog wàcc. ñu daal noonu daal lañ koy jàppee incha allah. macha allah comme ñu ngi ci njàng mi loolu daf ñuy permettre ñu dugg ci beneen rubrique bi ñuy woowee tartil ñu daal di jox benn xale ñu jàng alquran noppee ñu daal di jàll ci beneen pàcc incha allah.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 فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم ۖ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا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 وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون sadaqallaahu al-aziim. macha allah gis nga xale bi alxuraan mi ngi jàng ñu ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu gën ko yokk euh, alxuraan ji nga xam ne moom lañ def ci moom ki ko def ci moom. moom ak waajur ñi ko fi indi tamit yal na yàlla barkeel loolu. amiin yaa rabbi amiin. kon bu ko defee oustaz ñu daal di ñëw ci beneen rubrique bu ñu woowee xamle. xamle nag rubrique la dañ lay bàyyi rek loo bëgg a xamle ay alxuraan la hadis la situation la. lenn loo xam ne bëgg nga koo ne mu nekk sa xel nga bëgg koo wax dénk comme kàddu dénkaane jëmee ko ci jullit ñi la neexee nga waxee ko ak loo bëgg a dénkaane rek man de sama dénkaane lenn rekk la mooy ñi nga xam ne ñooy doomi daara yi te yori milliards nañ organisé wu nañ wootewaat xam nga dégg naa fi benn organisation benn organisation ca kokki ñu naan ko wajaahidu wallahi alladi laa ilaa xayru sama xool doon na seddu guy su fekkoonte ne daara yépp ci Sénégal ak képp ku alquran ñor dañuy am benn bés ci at mi boo xam ne dañuy dajaloo la ñuy dajaloo xam nga mooy lan mooy xool tey benn daara xool nangami daara yu ñu war a defar waxuma xool nangami daara yu ñu war a defar xool nag wan yoon lañ koy defaree moo xam ci concours lañ koy jaare waaw moo xam ci concours lañ koy jaare masala mën nañ ne ah dañuy def concours alquran daa nangami daara première daara deuxième daara troisième daara ba nangami daara ñu xool su fekkente ne daara jooju amul li war a am ñu fexe mu am li mu war a am